Yay, Dom, Mali, mani Sach, yi sax dañuy Wali Abba Grand Théâtre National reçoit la team Abba dans Dakar MDR avec le phénomène le premier animateur humoriste du Sénégal le king du rire rendez-vous ce vendredi 5 juillet au Grand Théâtre National entrée fille 5000 fait 10 000 français, CFA dong Retan Bofate c'est souci c'est seulement chez Abacho Show ak Abba at dafay gëna neex mës ngeen gis ay waykat yu comédie sax ndax spectacle son et lumière bu amul fenn vendredi 5 juillet 2019 Dakar MDR da ngay ré di tel len def réservation tu 77 655 51 80 wala ci 78 162 88 13 Dakar MDR vendredi 5 juillet 2019 au Grand Théâtre guichet fermé la ñu koy def Grand Théâtre

gaay ziar <laughs> yeneen be du lundi au jeudi de 10h à 12h sur RFM. Écoutez de la bonne musique au bon moment et pour tous les âges. <laughs> les dëgg du bi nopp dëggantaan du génni mbokk dëggantaan ci rajo Futur Média du lundi au jeudi ak Abba No Stress 10 heures 12 heures ak nouveau programme programme bu spécial ak Abba No ci rajo Futur Média lundi nouveauté ak info du week-end mardi les phénomènes de la musique sénégalaise on ak invité ci dëggantaan ci rajo Futur Média invité bi ñëw toog li ngeen bëgg xam ci moom Abba waxtaane ko ak moom ubbi leen antenne bi ngeen waxtaan ak seen waykat seen musicien seen daanaan mercredi ngeen am rétro amit ci dëggantaan jeudi live 100 ambiance ak Aba No Stress ci dëggantaan qui radio Futur Media dëgg dëgg Aba dëggantaan Ndiaye Aba dëgg ki yaw la. de dëgg dëgg dëggantaan rekay ay dëgg. Écoute sur RFM. Écoute sur RFM. Écoute sur RFM. Aba nous Stress air! về về trong baaxul ba ma tàggu woon doo ma yóbbee coono yi nga xam ni moom laa amee <laughs> léegi kon damay xool beneen métier ma daal di koy euh, choisir <laughs> aja maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax a baax di leen jaajëfal di jaajëfal waa orange nga xam ne ñoo leen di may seen émission dëggantaan na waa ji dafa nopp xale bu jigéen bi yow di ko doxaan waa ji yorul dara amul wérul ay nelawam doyul mu ne xale bi bëgg naa la mbëggeel goo xam ne musuma kaa bëgg kuy dund xale bi ne ko waatal waa ji waat lijjanti ba invité xale bi restaurant ñu dem yegg ca restaurant ba waa ji ne ko euh, gis nga damay géngu rek waaye li ma def sax mënuma ko sama xarit beetoog li fi dee yëpp moo ko rey kee papam ministre la xale bu jigéen bi ne ko est-ce que bëgg nga ma waa ji ne ko waa moo tax ma lijjanti ba indi la fii mu ne ko déedéet boo ma bëggee waatal waa ji waataat ne ko billaahi bëgg naa la mu ne ko boo ma bëggee kee nga may présenté kee <laughs> jigéen ñi ko yëpp na def ci ñoom ndànk daal ñoom daal ñoom daal <laughs> naan ko boo ma bëggee rek te fii dëkk présenté ma ke ke ke <laughs> ma maraan ko ngay daw commission aja pour ñuy déglu maa ngi leen di kontaane bu baax Coumba Gawlo ngeen am sama xol xam nga yi da daan am <laughs> bi ñu nekk xale daan baal daan organiser ay cholédra <laughs> ngay gis ñu teg mbalax mu foor am ñoo xam dañ koy jël suloo ko yow suloo ko nga danga daan nenn benn xale bu ne ca koñ ba rek daal di koy nenn ca baal yee ngay profité pour pour pour pour am sa intimité ak moom <laughs> jël sa intimité ak moom rek daal ci baal yee ngay profité nga baal yi dañ daan bëri kersa ñun suñuy baal dañ doon am kersa. dañ daan baal dañ daan fay lamp yi baal noonu sama benn xarit dafa nenn xale bu jigéen bi rek yow nenn ko yow topp xale bi bu xale bi dugg yow mu dugg fa nenn xale bi nenn ko nenn ko nenn ko nenn ko bañ taal lamp yi <laughs> ndagee <laughs> sama xarit bi bi muy baal xale bu jigéen bi yow baal ma dem na bëpp ko loxo yow ñu taal lamp yi rek yow mu bëgg a waaxu génn ndake séeréer bee toog ci bunt bi yow <laughs> ne ko ee eh, ba ah waaye damaa xaw a saf sa waaye ma bëgg dem si ma ku la teree dem saa yu man coca petit modèle bi coca petit modèle bi <laughs> du génn <laughs> koy nii ngeen di def biteelu boisson yi di manqué coca petit modèle bi du génn wax naa ko lii du coca petit modèle de <laughs> ay jëf ngi noonu Kumba Gawlo sama xol. wax naa noonu laay tàggatee seeni i xol tey damay tàggat seen xol ba mu baax ma sokkee def li nga xam ni moom mooy li gën ci yéen ndax reetaan dafa am solo lool lool lool lool lool euh, bi boo ko tàggatee ànd ci ak Kumba Gawlo mooy sama xol donc dama ciy def rek ngeen reetaan yàlla na seen xol yëpp fiix yàlla na ngeen yeewoo piix goo xam ni yow mi may seetaan démarré ree dafa am solo lool c'est très important moo tax ñu joxante rendez-vous 5 juillet te Grand Théâtre bi léeg-léeg réew bi neex day dalal xel yow de mare wóy la xale bi yow man de bëgg naa la ca kanam a kanam ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam